investissement bi nga xam ni itam am na si allant sens donc instant bi nag Jérôme euh, mi ngi traversé benn période bu difficile ginnaaw son arrestation euh, puis son placement euh, sous mandat de dépôt nekk li nga xam que moo 25 septembre bi ñu daal di génn moom ki nga xam ne que moo di famem nag moom mooy daal wax que ni ki nga xam que mu di Jérôme Bandiagui il subit un nouveau revers sa famille en a reçu benn notification judiciaire pour justement ñu génn maison de fonction bi nga xam ni itam ñoom ñu ko doon occupé biir centre ville à Fann euh, alors euh, donc euh, dans son édition de ce jeudi li nga xam ne que moo di les échos ñëwaat na si nu mu gën a yaatoo si wàllu wunu mel moom ki nga xam ne que moo di Bandia gi ñu gën ko xamee si surnommé true sniper moom itam dafay occupé benn kër de manière illégale foofu su centre ville njottees ni c'est une maison de fonction en vertu d'une euh, fonction usurpée, la justice sénégalaise aurait ainsi décidé de reprendre possession de la ville jusqu'alors habitée par sa famille Madame li Sénégal décidé de la euh, la même source ethnique qu'une notification d'expulsion a été remise jeudi à son épouse euh, l'enjoignant de quitter les lieux afin concrètement Euh, place nekk Soumara dépôt ni ki li nga xam nekk moo di sa 25 septembre njabootam booy bëri daal dëkk si kër gi nga xam ni itam danga ko jox pour liggéeyam alors tey ñu bëgg fa daal di génnee. naka la ko daal di liggéeyam parce que da nga ne ci say moo dañ ko jox kër pour liggéeyam ban liggéeyam. ban liggéey Georges euh, euh, comment dirais-je Bandiaky Jérôme Bandiaky il n'est pas fonctionnaire. il n'est pas un agent de l'État du Sénégal. Garde rapproché. De, non, non, non. De, garde, garde rapproché. Nga jël état cœur euh, état. garde garde rapproché de Macky Sall. nga jël cœur état. Bon, fonctionnaire ça oh, ok c'est normal parce qu'il est à la fonction publique mais Jérôme Bandiaki qui n'est pas un fonctionnaire qui n'est rien du tout C'est il n'est rien du tout à part un nervi il n'est rien du tout il n'a pas une carte professionnelle de l'État du Sénégal Je une carte professionnelle du Sénégal Mais wala ay mais c'est pas un agent de l'État il faut pas dire que Jérôme jamono bi mu c'est tout à fait normal yoon lañuy ñuy mu def liggéeyam. point man dossier zéro Mbandiaki euh, waxoon mais parlant cette notification justement. dossier zéro Mbandiaki euh, d'expulsion euh, fa même enfin jàpp nañu instant bi ñu ngi. ils sont ils sont sommés ils sont sommés de quitter les lieux. ils sont sommés de quitter les lieux parce que kër bu mu bu ñu dëkk moomuñu ko. kër état la. point donc après Macky Sall ñom dina waroon génn. dama ne dañuy génn après Macky Sall ñom dañuy quitter. Même les fonctionnaires qui sont à, la retraite, ils ont servi dignement ce pays. Pourquoi on te dit parfois les fonctionnaires, bon, mais la retraite, ils ont kër gi quelqu'un qui est en fonction pourquoi ñu wax la lool asatuma nga ne ma benn Jérôme qui est un nervi qui ne sert pas qui ne sert personne du tout qui n'est rien du tout nga ne dit que war nañu bàyyi ak une maison de fonction il est est-ce qu'il est en fonction Jérôme, il est en fonction. Eh, enfin, vu la situation. Quelle, quelle situation euh, Il a été placé sous mandat de dépôt. Oui. Amna ay njabot. Oui. Dom, jabar, étant d'autres, étant d'autres. Fallo. Ah, yo, t'es nga am remords bobu. Non, non, du remords, mais jangat la en fait taxaw setlu la. Où sont les familles de Philibert Sambou et de Didier Badzi Ana yaay, ana ana ana jabar jabar Philibert Sambou. Xeyul misère fekk jëkëram. Non, Didier, Didier. Didier Badzi. misère dé. jabaram yagu fi réclamer parce que dañoo dagg salaire jëkkëram xalé yi ñar nar war nañu jàng femme bi amul lu muy fayé xalé pour ñu jàng ana salaire Didier Badji ak Fulbert Sambou ana s'en salaire des gens qui ont servi dignement ce pays des hommes de tenue Macky Sall xëy xëy dagg s'en salaire après s'en disparition dara gënul metti lolu aw asatement ma benn nervi bu melni qui je ne veux même pas citer son nom bugguma sa tout touram ben nervi ngeen nañu ñoo mu ngi kasso war nañu bàyyi njabootam mu occuper les les lieux il faut arrêter man je suis pas d'accord mais avant je ne suis pas d'accord mais avant concrètement avant il faut il faut peut-être euh, bett nañu euh, à l'issue justement de l'enquête li qui est topée dafa peut-être déjà ñenn ñi si ñenn analyser concrètement ak tantôt bëggoon ko xaar si ay dossiers yu gëna euh, am solo exemple ñom Bidé Badji ak ñom Fulbert Sambou mais après li ñu koy topé Arfan xawna xawna xaw peut-être légère. yow da nga xeeb lu ñu koy topé parce que topu ñu lako non non Arfan la la euh, loolu laay wax ni. mais est-ce que jàppoo ni ñoom finish maanaam fi dossier. concrètement oui d'accord xama ñi ñuy taxaw parce que yow nee nga. xam fan euh, il faut ñu léral

ñom ñoy taxaw di naan non dossier Jérôme Bandiaky dafa léger luñ ko topé dafa léger c'est parce que ñom topp ñu leen la même chose gis nga buñ ñu topé on la même chose ñu xamni kon lolu diis faux et usage de faux ñu jox la passeport diplomatique alors que tu n'es pas un diplomate sénégalais na nga ko amé naka nga ko amé gis nga Jérôme Bandiaky lu mu def ñom ñi diko wax diko défendre ils feront pas la même chose luñ ko def buñ ko des ñu xam ni tay kon lu ko topé tay 10 na hmm. man je suis pas dans la manipulation là je suis pas dans la manipulation lolu mo yak malheureusement sénégalais les manipulateurs qui sont là ils manipulent des gens ils disent que non, le ñu toppee Jérôme Bandiaky non dafa léger waruñu nangu tey sa maison de fonction ñu non mais attends arrêtez il y fonctionnaires fonctionnaire sont au Sénégal amuñu kër ils sont en fonction Ils sont nii amuñu kër Jérôme qui n'est pas en fonction il bénéficie des privilèges de l'État a un cœur de fonction maison de fonction c'est un nervi est-ce que vous vous mesurez la gravité de ce que vous dites quelqu'un qui n'est pas en fonction il a des privilèges de l'État du Sénégal que des fonctionnaires qui sont en fonction jamono bii nii amuñu kër amuñu dëkkuwaay ngeen non sommet euh, la famille de Jérôme qui de de quitter les lieux non il faut arrêter mm. nit da ngay wax T'es tey que boo nekkee fonctionnaire t'es fàllu te amoo kër de mais tu vas dire que état lu l'homme def fini c'est pas normal. C'est injuste que des fonctionnaires qui servent dignement la fonction publique, des fonctionnaires qui servent dignement l'État du Sénégal, ils n'ont pas de cœur, de maison, ils n'ont pas de, de, maison de fonction. excusez-moi, il y a un nervi. Mon par contre, mon nervi, il a une maison de fonction, il a cœur. Vous, vous, vous trouvez ça normal vous le trouvez légal ou bien vous le trouvez juste dans ce pays question bi may laaj moi la c'est pas une information c'est pas une information il est sommé de quitter les lieux lui et sa famille ah bah, parce que le buñu c'est un bien de l'État donc la famille de Zéro Mbandiaki bu ñu amee ñuy méré nañu méré Macky Sall parce que c'est une maison de l'État du Sénégal point. alors euh, bar, bar, ce n'est pas évident euh, ki n'a que euh, au delà justement des faits c'est quand même franchement peut-être désolant une part exactement ñu que peut-être ñu am alors Arfan non nañu wax ci sama euh, xarit bi sama xarit nga tàggatoo exactement. sama xarit bi nag ci grève de la faim bi sama xarit bi. Hmm, non man man non non jeex na non sama xarit bi alors